seen jotaay kàggu mag ñi nag dellu si waat fii ci diwaanu euh, Parcelles Assainies boo ñëwee ba ci police bi rek xel itam day dellu si jëmm ju di spécialiste itam bu mag ci wàllum pajum cosaan ak al oustaz Mamadou Lamine Dramé euh, balaa ñuy sori dañ koy bàyyi kàddu gi mu daal di nuyoonteeg yi al oustaz asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilahi rahmaani rahim aousu billahi min sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi lasi anamana bil islam wa radi lana islama diinan wa nahnu radina billahi rabbana bil islami diinan bi seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan mbokki lislaam mbokki afrik bokki Europe mbokki àddina bi yëpp ñu ngi jubale suñ kàddu kàddu gi di kàddu nuyoo di dokkeel ñëpp nag suñu kilifa diine yi kilifa aada yi mag ñi way tukki yi way dëkk yi ñi ci hôpital yi yëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillah Euh, jërëjëf ci nuyoo yu sell yu tedd yi lee jërëjëf al oustaz Mamadou Lamine euh, Dramé la al oustaz mu mel nii fi ñu jëm directement rek mooy li yitteel addina bi yitteel hmm. askan wi muy li nga xam ne ni muy tawat yi nga xam ne moo nekk ci biir euh, kër yi buñ ko waxee rek xel yëpp day demat ci li nga xam ne moo di góor gu mënul boppam ci néew biir néegu say muy néew kattan mu nekk loo xam ne day lëmbee ci jamono gi am na ñoo xam ne danaan bu seddaay bi ñëwee la ñuy am na ñoo xam ne tàngoor gi sax ba léegi dañuy am jafe-jafe li nga xam ne moo di néew kàttan ñu bëgg itam nga indilaat ñu ci leeral bi nga xam ni sunu borom dénk na la ci wàllu spécialiste ci wàllu woowu bisimilah alhamdulilah ñu ngi siyaare ñëpp eh, li nga wax loolu moo mooy dëgg wàllu kàttan daal pour nit ñi sax laay wax muy góor jigéen mag ndaw laay wax ndax li ñu recherche bu ñu def war ko ci àddina bi li xew Afrique fii ñu nekk nii tey di wax ak yéen moo xew Europe muy fële moo xew itam ci yeneen goox yi léegi nag li xew ñëpp la li feeñ fii ci Afrique ci suñu yaram ba ñu yëg ko ba mu tayal loo ñu sonn loo ñu tële ñu moo xew Europe wax ji wax ji wax ji suñu nëbbantewul nëbbuwante kër gi moo doy waar kër gi kër gi du góor ñi rek de jigéen ñi góor ñi góor ñi jigéen ñi maanaam lu xew mooy mënatuñu dara suñu bëgg-bëgg yeggul suñu man-man yeegul suñu gis-gis yeegul suñu def-def yeegul suñu yëg-yëg neexul yàggul bëriwul waaw lu xew dañoo amul ay médecin wala dañu amul ay docteur walla dañoo déggul li ñu kilifa yi jàngaloon kilifa yi xam nañ leen ñuy dund ay téeméeri at ak ak ñaar fukk yore ti jabar yore kër di dem ci daara yi di dem ci tool yi dem ci dem fu nekk di liggéey yàqalu leen dara ci seen biir kër waaw ñun nag man fii ma nekk nii bon mois bi passé nii eh, ñi nga xam ne ni jaar nañ fi ci wàllu ndaw dem na ba ci trois cent dix sept personnes yoo xam ne ay ndaw lañ trente cinq ans ñi ne seen wàllu kër dooy na waar mag ñi ñoo ngi ci soixante sept personnes yoo xam ne ni kenn ku ne dane mënatuma dara lam mënoon sax dafa néew waaye mu ne mënatuma dara léegi nag lu xew mooy e, e, góor dafa am nu ko borom bi ko taala bindee ma ngi jàngaloon ñu ko jàng ko def ko ay garab sas yi wane tey lii nii du al oustaz Mouhamed Lamine Dramé moo ko liggéey du ma sàmba du ma demba waaye suñu bàyyi suñu yaay yi kilifa yi ngeen xam ñoo ko jàngale woon daan ko dundee bind ko ci ay téere bàyyi ko fi ñun nag ñu dem ñu jàngalaat ñu ñu ñëw teg ko ci kaw taabal bi pour ñëpp jëriñu ndam wuñ ci waxuñu ci lenn dañ ne lii moo baax te itam lii ñuy def depuis fanweeri at dégguñu ku ne baaxul kon kay ñëw leen waaw ah, ku lu waa ji def fanweeri at dégguñ ñu ne baaxul kon ñëw leen léegi nag lan lañ bëgg ak li garab bi dox dañoo bëgg li ñu tuddee góor ngeen baal ñu ci waxtaan wi parce que noonu lañ ko mën a waxee muy sàkkara li ñuy waxee li ñuy tuddee góor kanamam waaw ban garab moo ko mën a dëgëral parce que ñun góor ñi loolu lañ bëgg jigéen ñi loolu lañ bëgg te ñun amuñu si pexe waaw fu pexe me ne diñ ko seeti suñ ko seetiwul nag suñu kër du neex dañuy liggéey ba dee rek def ko ay tabax suñu xol du sedd suñu bët du naat suñu jëmm du naat suñu xolu njabootam du naat parce que mënuñu dara lu ko dëgëral moom la garab bi wax ak itam ndox bi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala dénk na ko ku góor ban pexe la ñu mën a def ba ndox mi bëri ok loolu la garab bi dox garab ban muy bii nii ak itam lu ko faral parce que koo wax mu ne wala ndox bi bariwul et dafa oyof waaw garab bi lu faral ndox mi la bëgg parce que ndox mi dafa war a far ndox mi dafa war a tàng ndox mi dafa war a weex tàll ku jigéen moo war a am zone mais góor dafa war a weex tàll ak itam lu ko sànni mais su ñëwee toq benn barab day génnaat dafa war a sànni benn centimètre wala ñaar loolu mooy góor lu ko dëgëral lu ko bëril lu ko faral lu ko tàngal jir ak itam lu ko weexal tàll ak itam loo xam ne buy ñëw day sànni garab bii ñu leen di wax nag di leen ko déclaré tey ne leen lu xew fii ci Afrique moo xew Europe ñun lu ñuy yëg suñu yaram fii ci biir Afrique noonu la waa Europe di yëgee seen yaram noonu la koy yëgee kon jàngoro ji benn la lii jël fii ci ay garab ci ay américain ay français ay australien ay océanien kenn xamul nu mu toll mu ëpp sax li waa Afrique di jël waaw léegi ñun ñu bëgg ci su ko defee léegi nag ñu ne ku góor kaa ngi nii am na koo xam ne nii guddule na waaye dëgërul am na koo xam ne nii gàttale na waaye dëgërul am na koo xam ne dafa digg doomu dafa yem waaye dëgërul am na koo xam ne nag moom li mu yor dafay dellu ci biir ci biti di dellu duggaat ci biir yaramam maanaam day dugg ko gën ngeen baal ñu yëgal ñu ci wax ji suñu mënu doon a ñàkk wax sax dañu nopp di ñu wax parce que biñ la tuddee jàngkat jàngkatu alquran jàngkatu hadiis yi sallallahu alayhi wa sallam tuddee la professeur ngay jàngale lu ëpp fanweeri at dafay dafay daf dul teggali nag ñuy wax yenn kàddu yi waaye suñu waxul la yàq moo ëpp moo tax foog ñu wax am na koo xam ne ni ñu ne bosam dafa sew pourtant garab bu ko dijjiloo ak bu ko réyloo mu ngi fi ñu ne kii garab bosam di réy na waaye mënul dara du taxaw amul ndox bu bëri ñu ni kii am na ndox mais ndox bi dafa tuuti mënul doy soxnaam ñu ni kii moom dafa amul dara ci ndox mën na sëy du am kàttan du ci yàgg amul ndox koy musiba la ñu ni kii kat ndoxam dafa farul parce que doon naa ko wax léegi ndox bi dafa war a far dafa war a bëri dafa war a sànni ñu kii nag moom kanamam dafa sew ndox bi muy indi tur yi dañoo jege mënul bari ñu ne góor gii de ndoxam daf du sànni fi mu war a yegg ci trompé ku jigéen ki du fa yegg ci bunt bi lay yem su noppee ndoxu ku góor ki day daal di sotteekuwaat dara du yegg ci trompé bi dara du yegg parce que dafa am ay turu turu yooyu ci la ndoxu ku góor ki di jaar dugg lan moo ko fay yóbbu dañ koy sànni bi ko sànnee bu fekkee turu yi fattul parce que turu yi lii moo koy fatt mooy ndoxu siti wala saan sëñ Muntaxa tudd na leen ko léegi siti wala saan wala émurit wala sëy ci biir régal wala deret mbéret bu jeexu doon def naa ci benn émission laaj ko docteur àdduna bi yëpp ma ne deret mbéret bi jeexul boromam seeyaat su bëggaatee am doom dañ koy opéré wala doom ji dee wala mu dee nañ ma tontu waaw ku génnee école ak sëñ Touba ak école El Hadj Malick laajte benn question mu bëgg a tëj monde bi yëpp nañ ma tontu man maa ne ku def lii lii moo la cay fekk waaw ban ordonnance la docteur yi àdduna bi yëpp war a bind ba loolu mu amati ñaata jigéen ñooy dee mille cinq cent personnes ñu ngi dee ci hôpitaux yi fii ci Sénégal rek mhm. par année bon pourquoi léegi nag ñu ne delluwaat ci ku góor gi mhm. ndox bi nga xam ne nii dafa war a génn ci ku gi dafa war a génn ci ci rapidement la war a def dafa buur rek dafa war a ñëw rek duur rek sànni mu dem amuñu ko mhm. parce que ndoxu saan ndoxu cité ndoxu hémorroïde constipation chronique rhumatisme anémie doo am sax deret bu doy loolu moo tax ndox bi du mën a génn normal am koo xam ne nii ndoxam bu dee ñëw day day zone day xaw a mboq maanaam day xaw a nete baaxul am koo xam ne nii ndox bi buy ñëw feeba ba deret la koy yeggalee day ñëw tuuti ndox bu oyof ñëw tuuti ndox bu rata la ci ay topp deret la du mayee doom baaxul am koo xam ne nii euh, góor boo xam ne moom benn yoon du fa def sax benn seconde mu pare kooku mën ta sëy ak ak ak jabaram ñaari yoon ñetti yoon ci guddi gi mënul nekk li garab bi sàkku nag mooy deferaat loolu parce que ku góor kaangoo am na benn sachet ñu ngi koy wax suti euh, de lañ ci bind ñëpp félicité ñu am na ku ne benn sachet bi jar na un million parce que lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt soo séqee sa soxna bi nga xam ne faral si yàlla suñu ciment bi ne ma dox seen diggante lu mu gàtt gàtt di nga def dix minutes ah sachet bi kay jar na un million waaw ñu ñu nekk fii di ma tawatal oustaz ma leen dramé man de benn seconde man de eh, du ma du ma sax benn minute waaye ndox bi day génnaat pourtant lii ma wax nii moom ngeen di tawat jigéen ñi ñoo leen ko gën a tawat mm-hmm. parce que ñoom encaissé wuñ dara. li ñuy se baaxul biir yi di néewi biir yi di gonfale biir yi di génnee ndox bu rata seen kanam yi di néewi seen seen seen seen ween yi di sadd seen gémmiñ yi di forox seen bët yi di lëndëm du jàmm jigéen ñi jàppatuñu forme moo tax nag ñu daw fekki tubaab ba façon diw bu ne ñu ngi koy diw façon rattaxal bu ne façon bu nooyal bu ne façon bu weexal bu ne façon jekk-jekkal bu ne ñu ngi koy jënd ci tubaab mu seer lool nañ ko bàyyi naan garabu Oustaz Mamadou Lamine jëmm ji ñëw tout normal ñun mm-hmm. oustaz lii la bëgg léegi nag garab bi lii moo ko to lii moo ko tax a jóg suñu ko defee danañ am sëy boo xam ne dina mën a di nga mën a sëy ay yoon ci bis bi di nga am ndox boo xam ne nii bu far lay doon di nga am ndox boo xam ne nii buy sànni lay doon waaye di nga am ndox boo xam ne nii buy ñëw doo sonn parce que garab bi li ko tax a baax mooy soo ca paree benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon doo yëg ni sax def nga dara loolu nag mën nga ko def ay fan bu la neexee am na huit minutes am na dix minutes fi mu yem nag mooy douze minutes waa lii kay doy na lii kay suñu ko waxee di ko wax trente ans ngeen war ñoo mën a dégg nag léegi nag lañ xamoon nag bu njëkk mooy siti saan émouride loolu moom xamoon nañ ko waaye nag xew-xew bi xew léegi nag laal àddina yëpp suñ mun taxaa wax ci bismillah Euh, jërëjëf euh, ak oustaz Mamadou Lamine Dramé yaakaar naa ni sax euh, ci benn simili rek xam naa la tënkee ndax jotaay bi daanaka dab nañu tam li wax nga ko muy wàllu hémorroïde bi nga xam ne yow loolu spécialiste nga ci ñu ñu bari xam la ci wàllu Fedras hémorroïde lañu ci daanalee ndax waxtu bi moo ñu dab. waaw jërëjëf mu Mountakha hémorroïde bi moom gis nga ko dama ne soo jëlee garab bi soo demee si sa wanag ba génnee deret bu dee dee bu bu yàggoon ci sa yaram même bu fa defee fukki day génn. wala dëtt am na fukki façon nag ak ñaar dana la seereloo biir bi jooy yaram bi fudd di néewi ngay génnee deret di génne ngelaw bu bëri di manqué kattan xiiboon biir bi métti ndigg luy métti bët yuy jooy bopp biy metti doo am xemem ci dara même affaire soxna yi mu doon wax sa doo ko xemem yaram bi tàng gis nga nag lii nag bu ñu ko xoolee nag wax dëgg yàlla yonent bi li xew Afrique xew Europe ñett yi moo ko waral mooy nattu ak mbugal ak yërmande waaye léegi nag ban lañ ciy jël nangu ne nattu la ñu toog jàngoro di rey ñu wala mbugal la ñu toog mbugal mi rey ñu wala yërmande la ñu jóg dem sol suñu dal seeti oustaz Mouhamed Lamine Dramé faju am jàmm yore suñu kër yi gis nga saanangoog am na juróom benn jàngoro dina la seereloo bon lekk say deret lekk sa ndoxu góor nga yomba sonn doo xemem dara mbiru sëy sax doo ko man parce que doo génnee dara gis nga beneen a ngi nii itam ñuy siti am na fukki façon ak juróom benn taab neewo trabole kasanaan herbis waga koso-koso ràmm yeer jamaj ngal muy dagg say karaw dagg say we waaye ndox bu dee la bu nekk ci sa biir yaram baaxul moom mooy wër ci sa biir yaram mën na yàq sa ndoxu góor mën na yàq say bët mën na leen indil ay jafe-jafe yu ne lan mooy indi jàngoro yu bëri yii nag ba nga xam ne doomu aadama yëpp fu mu ne ñëw ngi ci problème mooy fel matt teeñ yoo koos méto melentaan xarigeen jargoñ mbóot wànq gunóor sax mooy sonal siti mooy sonal saan mooy sonal hémorroïde mooy sonal constipation chronique li nga xam ne nag moom moo ñu tax ñun nekkatuñu góor mënatuñu dara dara dëgëratul ndox bëreetul ndox saaneetul mooy lan mooy li ñu lekk léegi baaxul li ñuy lekk baaxul mm-hmm. lu ñuy lekk baaxul mag ñu jàngaloon nañu problème mu lekk ni nga koy doxoree parce que léegi moytootuñu yii xaraaratu sukkri tàngooru suukar moytuwuñ ko xaraaratu samsi tàngooru jant bi moytuwuñ ko xaraaratu lax mi yàpp bu tàng bi moytuwuñ ko tu sayti diw bu bëri gi wàññiwuñ ko léegi nag moo ñu andi lii nag mënatuñ dara yaram yëpp xojogoon ne yaram yëpp nooy yaram yëpp rattax yaram yëpp ras yaram yëpp sedd léegi nag nañu seeti al oustaz moom Lamine Dramé képp ku ñu woo dinañ waxtaan yow defaral la ambulog bu mag ambulog yaa ngi nii yu mag lay doon mu ngi nii bu mag lañ lay defaral sol si loo xam ne garab yoo xam ne day diire un mois joxal la ko CP bi wala DHL wala poste mu ñëw ci yow rek geex na Sénégal noonu la Europe yëpp noonu la mhm. fay bi benn la ñu joxe njëgguru defar suñu yaram defar suñu kër yore suñu njaboot am jaame àddina ak àllaaxira mucc ci nattu ak mbugal ak mande xatum kaawam la ñoo koy fajal suñu bopp jo waxuñu ko pour am xaalis wala am ay kër wala am ay oto wala nit ñi topp ñu déedéet ñun passé nañu foofu yooyu am nañ ko bu yàgg-yàgg bu ñuy wax ak yéen su ko defee nag wax ak yéen nag moo des ndax jaamu yàlla la tabax jàkka la tabax juumaa la yéen tabax jàkka tabax juumaa la loolu moo tax ñu wax ak yéen fekk si leen ñu naxante amu fii fii këru daara la kër sëñ Tuubaa la kër Alaaji Maalik la kër yeneen ni seex la kon alhamdulilah seytum xayran seen am di jàmm seen xarit al oustaz moom Lamine Dramé mu ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen wax yéen ñëpp yéen ngeen nekk si jàmm ngeen fonk nag astaghfirullah 1947 suba ngoon incha allah dinañ am jàmme àddina ak jàmme àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Euh, waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu santaan nañ ko beneen yoon tabarkalla di spécialiste bu mag tabarkalla yaakaar naa euh, addina bi yëpp euh, maanaam rafetlu xam-xamam gu sell te wóor al oustaz Mamadou Lamine Dramé waaye itam di leen fàttali mu ngi bokk fédération di fédération des tradipraticiens de santé du Sénégal waaye di spécialiste gis nga ci waa biir néegu kattan ci biir néegu sëy yi nga xam ne ni muy yëngu saa su ne itam mu ciy def ay liggéey yu am am solo mbokk yi ngeen ngi ci

di ñaan allahu budd subhanahu wa taala doolee guddal fanam lool doolee ko defal tawfeex ak taysiir ak nag yaaxa defal ko saxat daare ni ci barke yonent bi mu yàgg lool di jëflante ak askan wi waaye tam saa bi di ko ci defal ndam saa su ne itam di nuyu mboolem équipe technique bi ma àndaloon ci wàllu caméra beeg montage bi ak euh, euh, caméra bi itam di ci sant bu baax a baax ki nga xam ne moo di Mohamed ci wàllu réalisation bi seen jotaay kàggu mag ñi yàlla mi borom na yàlla saa borom bi doolu ñu defal jàmm assalaamu aleykum wa